mbokk yi président Idriss Seck mu ngi wax ni asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ngi yëkkati kaddu nuyoo sell yooyu. mu ngi yëkkati kaddu yooyu yu sell yooyu. di ko jébbal suñu jeune frère. di ko jébbal rakkam ji wante itam suñu kilifa ci dëkk bi. waaye tamit nekk kilifaam ci dëkk bi. ndax moom président Idrissa Seck nee na administrem la monsieur le maire Babacar Diop. ku tàbbi ci dëkk bi. kon ku tàbbi ci dëkk bi. ci moom nga war a jaar. ci moom nga war a jaare. ak loo fi mën loo fi mën di dox si rek ci moom nga war a jaar. kon sama rakk la. kon nag nangu na ni rakkam la lool. bokk ci rakk yi ma yàlla séddee. bokk ci rakk yi ko yàlla séddee. te ma naw leen. te naw leen. ci seen xam-xam ak seen jikko ak seen jikko surtout seen jikko mu ne surtout nag seen jikko wante yàlla def ko kilifa waaye it yàlla def ko kilifa place bi nga xam ni toogoon naa fi place bi nga xamante ni moom président a toogoon na fi ànd ko ak Yankoba ànd ko ak monsieur le ministre Yankoba Diatara yàlla teg ko fi tey yàlla teg fi tey monsieur le maire Babacar Diop mu nekk tey kilifa dëkk bi lu mu doon doon rakkam wàccuwaay boobu itam nga xam ni cër la bu ko yàlla jagleel bu ñu toogee ci wetam daf ciy bàyyi xel lool nee na li imaam Idrissa Gay wax léegi ci li sabab tànk yi ñëw fii nee mat na sëkk te mat te lu dafa naqaree mottali ndax li jiitu ci sababu ñëw li bi mooy bokkandoo ak moom ak ak njaboot gi ak njaboot gi ak dëkkandoo yi ak dëkkandoo suñu boroom tàllal suñu loxo ñaan ñaan ko suñu baay bi jiitu ji mu dajale ko ak njëggalam mu dajale ko ak njëggalam dajale ko ak yërmandeem xare ko aljanna xare ko aljanna yi gën a kawe te am nañu ci am nañ ci yaakaar bu baax ndax li imaam Idrissa seede ci moom ndax li imaam Idrissa seede ci moom ku yàlla baaxe nga xamoon ko ku yàlla baaxe nga xamoon ko mën nga koo nga koo seede ci jàng alquran ci jàngale ko ci gindi ci nit ñi ci loolu rek lañ ko xam ku yàlla baaxe it nga nekk ci loolu ba wuy ji ko ñu saña am yaakaar ñu sañ a am yaakaar ne dina la teeru ne dina la teeru teeru bu mucc teeru bu mucc ayib yàlla na ko ko yàlla defal ñu ngi la koy jaal bu baax monsieur le nim ko war a jaaree président Idrissa Seck mii di magam ndax ñoom ñaar nag ñoo bokk way jur wi loolu loolu mooy kaddu yi te munoon nañu cee yem te munoon na cee yem nag wante seede dafa waaye seede it dafa baax ndax ni ko imaam nee ni ko imam waxee léegi pour rek nee na pour gindi rek pour leeral pour leeral dafa wax ni Babacar monsieur le maire Babacar Diop dafa bokk ci rakk yi ma yàlla dafa bokk ci rakk yi ko yàlla séddee te naw seen jikko te mu jikkoom ji naw xam-xam naw xam-xam bi ko yàlla jox yàlla dogalee ne bi yàlla dogalee ci wàllu politique ci wàllu politique ñu njëkk a toog ñu njëkk a toog ñoom ñaar mu am yéene jàppale mu am yéene jàppale magam président Idrissa daf ko wax loo xamante ni loolu la fas ba fii ñu toog tey te musul gis ci doxalinam lu fecci loolu ndax daf ko doon félicité ci parcours bi mu def ci kóoluteef gi étudiants yi daan am di ko jiital ci seen kanam mu wax ma bàyyi xel gi muy bàyyi xel. mu wax ni bàyyi xel gi muy bàyyi xel. ci kóoluteef googu. ci kóoluteef googu. yi ko ay moroomam wékk. yi ko ay moroomam wékk. ci waxam ci waxam. ak ci jëfam fu mu toll fu mu toll. mu ne bu ñu tàbbee nag. ci élection deux mille dix ci élection deux mille dix neuf. mu xat lool. nee mu xat lool. moo jël décision. moom monsieur le Babacar moo jël décision. ak parteem ak parteem. ne ma may taxawal congrès bi lay investir. ne ko nag mag ji may taxawal congrès bi lay investir. loolu sama assistante. loolu nag assistantam bi di suñu sœur ñoom ñaar ñii. di joor saaña. di joor saaña. mat na ci seede. mat lool. mu mu def jomi boppam nag. def congrès am defuma lu dul dem ca deful moom président Idrissa lu dul dem ca donc loolu kon nag loole dox na ci suñu diggante dox na ci seen diggante ñoom ñaar bokk ci yu rafet bokk ci yu rafet yi mu dundale yi mu dundale kóllëre gi ñu yàlla gi leen yàlla boole ñoom ñaar loole di dox loole nag di dox dañul ñu génn ci élection yooyu. yàlla defal ñu ndam yàlla defal ñu ndam. ñii ne ñoo gañe ñu foqar ci ko. ñii ne ñoo ñu foqar ko. ñii ne ñoo jël deuxième. ñii ne ñun ñoo jël deuxième. ma dajale candidat opposition président Idrissa Seck nee na mu dajale candidat opposition bi yëpp. ci sama kër ci e. nee na ca këram ca point E. Ousmane Sonko. nee na Sonko. Madické Niang Madické Issa Sall ak Issa Sall ñu toog nee na ñu toog ma ne leen ma ne leen ku am yéeney jiite réew ku am yéeney jiite réew doo ko taal doo doo ko def dóom doo ko def dóom xale yaa ngi ñuy soññ pour ñu génn ci mbedd yi ñu génn ci mbedd yi manifester wante man du ko def waaye moom président Idrissa Seck duma ko def ma teg ci ne mu teg ci ne fekkente ne. bu fekkente ni. élection yi jeex na. élection yi nag jeex na. li waroon a am ci taxawaay. li waroon a am ci taxawaay. ci bureau de vote yi. ci bureau yi. ak bisu élection ak bisu élection yi. manqué ba nga ñaay li ñu jàpp. ba ñu jàpp. ñu ko ñu foqarti ko. Ah, nañ leen dem nag wutiwaat. waaye nag moom président Idriss Seck du ca dem ca conseil constitutionnel di def contentieux jamono di dox mu ne président de la république woote dialogue national nee na ñoom ñëpp ñu ànd ci opposition bi d'accord ci waxtaane réew mi nee na commission ba leader yëpp seen ndawa nga ca woon Déthié Fall mi nekkoon ci wetam moo jiite kuléeru opposition bi ba ñu teewal ci jaloog ba ci njiitu général ñoo yàlla ko yàlla yokk yërmande ak njéggal bi ñu defee waxtaan wu ba am ñaar fukki foñ ak juróom yu ñu bokk d'accord ko yu ñu d'accordul ñaar nag ñaar la walla ñett te bi ci ëpp solo bi ci ëppoon solo moo doon moo doonoon wax lan mooy àq lan mooy ak cër ak cër ak kiiraange kiiraange bu opposition bi war war a am

tànn chef de l'opposition bu ñuy tànn chef de l'opposition ki ñëw ñaareel ki ñëw ñaareel ci ëppale ci ëppale jàllu ñu ko voteel jàllu ko voteel moo war a nekk chef de moo war a nekk chef de l'opposition waa opposition bi waa opposition bi d'accorduñu ci ñii ne ñii ne ci parlement ba lañ ko war a defee falal fu lañ ko war a lijjantee Ablaye Wade moom la Abdoulaye Wade président ne moom la. Ousmane Sonko ni loolu moom du sax. Ousmane Sonko ne loolu du sujet am sax. loolu moom amul lu ko njariñ. ñi ci des ne. ñi ci des ne. xalaatu président bi xëy na jub na. xalaatu président bi xëy na jub na. wante nañ ko dàq ba deux mille vingt quatre. waaye nañ ko dàq ba deux mille vingt quatre. maanaam ci gàttal daal. <laughs> maanaam ci gàttal daal. bu Idrissa doon. bu Idrissa doon. chef de l' opposition. ñu jox ko Thiès. kees ñu jox ko kees. deux milliards xaw ma quatre milliards. deux milliards xaw ma quatre milliards. moom lañ doon wax. loolu lañ doon wax ci jamono joojoe. lii rek moo doon désaccord. waaye lii rek moo nekkoon désaccord. entre la majorité. ci diggante majorité bi. ak opposition bi. ci li dialogue national bi national bi jur. jur. dem. nee ñu dem. ba Covid bi. ba mbas mi dugg ci dëkk bi. dugg ci dugg ci réew mii di Sénégal. nee na président de la république woote waat. nee na ñëpp it ci opposition bi delluwaat nan wuy ji woote ba. mu ne ko moom président Idrissa. dialogue bi. lii la jur. rapport baa ngi. wante. wante nag. ci àddina bi lii tabbi ci àddina bi di mbas. dal ci suñu kaw dafa jur situation bu bees. dafa jur nag situation bu bees. mën nañoo wëy. mën nañoo wëy. di tojante ay bopp ay bopp. mbas mi ñëw yokk ci ñun. faagaagal ñu faagaagal ñu. ànd ñu ànd. gàttandu ko ci lu ñu man ci xalaat ci ak jëf. ngir mu woyof ci askan wi moom président Idrissa mu ne ko loolu dëppoo na ak sama xalaat ci ne ak sama xalaat ci ne ku bëgg jiite réew doo ko def doom te bu lu mel noonu dalee ci bu mel noonu bu dalee ci sa kaw da ngay fàtte nag sa bopp tal réew mi bu tal bu tal bu pare nga delluwaat ca la nga nekkoon moom monsieur le maire Babacar Diop bokk ci bokk ci ñi mu xalaatoon ni ci seen xam-xam ak seen jikko ci seen xam ak seen jikko waroon nañoo jàpp ci loolu waroon nañoo jàpp ci liggéey boobee gunge ma ci gunge ko ci moom président Idrissa Seck mu waxtaan ci ak monsieur le maire Babacar Diop ne Babacar gàntal ko ndax itam sàmmoonteeg ñi mu àndal njaboote leen respecté leen seen xalaat nee mu naw ko ci lool moom président Idrissa lii daal bu fekkente ne am na bu fekkente ne rek am na lu ñu soreele loolu képp la woon wante ànd bi moom ak kóllëre gi lu ko ci war ci rafetal ak sàmm def na ko ne li imam Idrissa gay wax léegi mu ne président Idrissa Seck jaale bi mu ñëw jaale si ko rakkam Babacar Diop nee na mënoon na wàcc avion bi jóge Amérique téléphoné ko ne ko maa ngi xaar sama njaal ci góor gi te xam naa ni bu ma ko ko waxoon xam na ni bu ko ko waxoon it dina taal otoom dina taal otoom fekk ko point jaale ma waajur wi nga xam ñu ñoom ñaar ñoo ko bokk lii mooy seede bi ginnaaw ñaan yi mu ñaanal góor gi ginnaaw ñaan yi mu ñaanal góor gi itam ñu ñaanal ko mu koy ñaanal yen bi ko yàlla yen te ma xam diisaay bi te mu xam moom président Idrissa diisaay bi xam moom jomam xam moom mii kër Diop jomam ci sàmmonteeg cër bu ñu ko dénk ci sàmmonteeg cër bu ko dénk yàlla na ko ko yàlla téeñal yàlla na ko yàlla téeñal bi mu duggee Thiès ne bi mu duggee Thiès jaar ci avenue de camps jaar ci avenue de camps ba egg sama kër ba egg biir këram gis lamp ya ma fa defoon gis lamp yi fi président Idrissa Seck defoon yëpp tàkkaat ma ne mu ngi ci yoon wi nee na macha allah nee na coow it mënul ñàkk parce que nag lu bees boo ko yoree début bi day jafe moo tax boo bëggee defar ñii ne doo ko fi defee yooyu. mënul ñàkk te bi mu amee itam ca njalbeen ga gis na mat ak dal gi mu ko géré ba yàlla def tawféexam kon ñu koy ñaanal yàlla mu am une victoire éclatante ci mission bi di ko ñaanal yàlla sàmm ko gën a dëgëral ay tànkam gën a leeral xelam ngir li mu dëgmal pour njariñu Sénégalu ëllëg ci ñi mu te bokk ci ñi mu ci yaakaar yàlla bañ ko ceeg dajaleeg benn jafe-jafe benn gàllankoor allahumma salli ala sayyiduna muhammadin waliyullah wa ala alihi sahbihi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf mbokk yi monsieur le maire Babacar Diop mu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp. ah monsieur le maire nee na mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. waaye ci jiital ci nuyoo boobu. nee na mu ngi jiital ci nuyoo bi. sama mag. nee na magam. di sama nijaay. nee na di nijaayam. di suma kilifa. nee na di kilifaam. di président Idrissa Seck. nee na di président Idrissa Seck. waaye it mu nuyu. nee na waaye mu nuyu. sama magit nee na mu nuyu mag magam. Uh, Serigne Idrissa Gaye. nee na imaam Alhaji Idrissa Gaye. di suma di suñu mag. nee na di suñu mag. ni ko waxee lépp. nee nee na ni ko waxee léegi moom moom moom moom imaam Idriss. famille bi ni mu jaxasoo. nee na famille bi ni mu jaxasoo. ba sama rakk yu bëri yi nga xamante ni wàcce nañ alxuraan daanaka ci bàyyi laay lañ lañ dalee alxuraan. nee na ba ci rakkam yu bëri yu wàcce alquran président Idrissa ci rakkam moom mii muy bàyyi laay gay ci moom la ñu jàngee alquran ba wàcc. ni bàyyi laay jaxasoo woon ak góor gi. nee na bàyyi laay ni mu jaxasoo woon ak góor gi. ni mu jaxasoo ak samay grand frère. nee na ni mu jaxasoo ak ay grand frère am. ñu bokkoon ay classe bokkoon Bilal ak yeneen ak yeneen. nee na moom moom monsieur le maire Babacar moom Ablaye yàlla dafa dogaloon ñu bokkoon Bilal bokkoon itam lu bëree bëree bëri. moo tax ñu bëri. bu ñu comprendre taxawaayu Ablaye euh, ci ci ci dëj bi. nee na ñu bëri bu ñu comprendre taxawaayu oustaz Abdallahi gay ci dëj bi. donc loolu moo ko waral. nee na loolu moo ko waral. Euh, waaye di nuyu. nee na waaye mu ngi nuyu. Euh, le ministre Yankhoba Diattara. nee na le ministre Yankhoba Diattara. di suma mag. nee na di magam. jiituñu ci mouvement élève ak mouvement étudiant. nee jiitu ko ci mouvement élève ak étudiant. ñu jàng lu bari ci ñoom. nee na moom monsieur le maire Babacar ñu jàng lu bëree bëree ci ñoom. wax naa ko biñ ko falee ministre des sports. nee na monsieur le ministre Yankhoba Diattara biñ ko falee ministre de de l' war a jëm coupe du monde. nee mu war a dem coupe du monde. xawoon naa ko tiital tuuti. nee na moom monsieur le maire Babacar xawoon na koo tiital tuuti. contexte bi dafa jafe. nee na contexte bi dafa jafe. te Sénégal di réew mu doy waar. nee na te Sénégal di réew mu doy waar. bi nga defee ay résultats yu honorable nee na bi bi mu bi mu defee ay résultat yu honorable am naa ci mbégte. nee na moom monsieur le maire Babacar nee na am na ci mbégte. ndax dama ko cee xalaat. ndax nee na monsieur le ministre nee na daf la daf la cee xalaat. bi ñu defee premier match ñu perdre. nee na bi ngeen defee premier mars match ngeen perdre. moo xam ne suñu réew mii. nee na mu xam ni suñu réew mii. niñ mën ci confusion ak jaxase lu nee na li ñu mën ci confusion ak jaxase lu bokkul. bu ñu ñibbisee fii ca résultat yi baaxul. nee na bu ñu ñibbisee fii nag ca résultat yi baaxul. du yem ci du yem ci Aliou Cissé du yem ci joueur yi. nee na mbir bi problème bi du du yem ci Aliou Cissé Aliou Cissé waaye du yem itam ci joueur yi. du la fi bàyyeet. nee na te monsieur le ministre Yankhoba du la fi bàyyeet. coow du la fi bàyyi. nee na te coow li nag bu jogee du la fi bàyyi. moo taxoon ma amoon yéene bu. baax ci sama xol. nee na monsieur le maire Babacar nee na loolu moo taxoon mu amoon yéene ci xolam. yéene la ci nga génn ci. nee na mu yéene la monsieur le ministre nga génn ci. kon di la félicité. nekkoon kon monsieur le ministre mu ngi lay félicité. ci saan bi ñu génn. nee na ci saan wii ñu génn. ci ndam li ci Sénégal am. nee na ci ndam lii ci Sénégal am. Euh, nga am ko ci. nee na nga am ko ci monsieur le ministre. nee ñu ngi la ciy félicité bu baax. suñu mag nga. nee na suñu mag nga. démb. nee démb. barki démb. barki demb moo wax ko démb. nee mu wax ko démb. wax ko barki démb. mu wax ko barku démb. wax ko tey. wax ko tey. waxaat ko suba waxaat ko tam suba. nee na toujours mu wax ko nag te mu ngi koy assumé. waaye muy nuyu. nee na waaye nag muy muy nuyu. beral ko loxo. nee kenn. ci sa équipe. nee na ci sa équipe. di suma xarit. nee di xaritam. di sama grande nee di grande sœuram. di Dior Silla. nee muy soxna joor Silla. di jigéen ju baax. soxna joor Silla di jigéen ju baax. kuy wut nit ku nee monsieur le maire nee na kuy wut nit ku baax. jigéen ju baax. kuy wut jigéen ju baax. soo ko xamee di nga ko téye. nee boo xamee soxna joor sillaa di nga ko téye. sooy wut leneen nag. ne boo dee wut leneen baa ngay wut keneen nag yaa xam. waaye ku jaxasoo ak moom. nee na soxna joor ku jaxasoo ak moom. xam ni nit nga xam ni soxna joor sir la nit ku baax la. di nga xam ni ci ay valeurs yiñ ko yar. di nga xam ni ay valeurs yiñ ko yar. valeur yu dëgër la. nee valeur yu dëgër la. yu méngoo ak suñu cosaanu réew. nee na yu méngoo ci ak suñuy cosaanu réew la. boole ñu sama diggante ak moom. président Idrissa nga boole ko. ñoom ñaar seen diggante. ngir suñu diggante mën a rataxal. nee na nga boole kook moom. ndax seen diggante mën a ratax. muy dox diggante bi. nee na moom soxna Joor muy dox diggante bi. booba ba léegi. nee na booba ba léegi. ma naw ko ci lool. nee nag moom monsieur le maire mu naw ci nag soxna Joor lool. waaye nawewu ma ko dara lu dul jikko. nee na soxna Joor. monsieur le maire Babacar nee na nawewu ko dara lu dul jikko ndax man yàlla damaa nattu ndax nee na moom yàlla def koo nattu nit mënu maa won lu fees sama bët nee na yàlla def koo nattu amul lenn lu ko nit mën a won lu fees bëtam du poste nee na du poste du palace nee du palace du présidence nee du présidence gàttandu tey président États-Unis gàttandu keneen laa ci yem nee na moom mu gàttandu président euh, euh, Amérique ak mu président maanaam beneen président nee na moom la ci bokk yemale. damay ay valeur lay téye nee na moom mu le maire Babacar bu dee téye nit nee na ay valeur ay jikko lay téye nit. joor moomu ci loolu laa ko nawee. nee soxna joor si la nee na ci loolu la ko nawee. ba am place ci sama xol. nee na ba soxna joor am place ci xolam. ma koy assumé nag. nee na mu koy assumé nag. suma xarit la. nee na xaritam la. sama mag la. magam la. sama sama mag bu jigéen la. nee na magam bu jigéen la. bu baax bu baax. waaye ma lay témoigner it. nee président Idrissa mu lay seedeel ni itam. ci sa njaboot. nee na ci sa njaboot. Euh, monsieur le maire Omar Ciss mi. nee na monsieur le maire Omar Ngalla Ciss Ciss mi. daf ci bokk. nee na moom itam da cee bokk. nekk adjoint au maire. nekk adjoint au maire. ñu taxaw ne mu leen di taxawu. di ñu jàppale di leen jàppale. ci expérience am nee na ci expérience am. xoolu ci. nee na ca xoolu ci. ban coalition la bokk ban coalition la bokk. ak ban parti la bokk ak ban parti la bokk. su ma bu ma xewlee ma woote. président euh, monsieur le maire Babacar nee na bu xewlee woote. mairie ba mairie ba. mu ni ñi ni ko maire moo soxla tey nee na ñu ne Oumar Ngalla Cissé maanaam siis maanaam monsieur le maire moo xew la tey wala moo soxla wala moo soxla muy travail technique nee na muy travail technique muy leneen nee na muy leneen moo fay jiitu nee na moom monsieur le maire Oumar Ngalla ne moo fay jiitu ak générosité boo nee na boole kook nag maanaam mbaax yéwén waaye yëg ak taxawaay boo xamante ne macha allah. boo xam ne da xam ne kii yéene rek. nee na macha allah te nga xam ne kii de maanaam yéene rek la am. expérience boobu nee na expérience boobu. doyen Aline Diop mii di. nee na sunu kilifa gu baax gi doyen Aline Diop. di adjoint au maire. moom itam muy adjoint au maire. mën na seede nee na lii mu wax moom monsieur le Babacar moom mii maanaam monsieur le maire mën na koo seede. mu des yow. nee na président Idrissa mu des nag yow. c'est vrai nawoon naa la. nee na dëgg-dëgg président Idrissa nawoon na la. ndax moo tax ma jël responsabilité investir la. nee na li tax maanaam mu naw la nee na naw googu mu la naw moom moo taxoon mu jóg taxaw pour investir la. Cees waa yëpp xam nañu li nga daj ci dëkk bi. nee na Cees waa yëpp xam nañu li nga daj ci dëkk bi. li nga sonnal Cees. li nga sonnal Cees. ak li nga ci jëlee nag. nee na ak nag li nga ci jëlee. kaso prison. nee na kaso. prison. jël wax ju bon teg ci sa der. nee na jël wax ju bon teg ko ci sa der. waaye man bi ma nekkee maire. waaye moom musala le maire nee bi mu nekkee maire. laay gën a xam mu gën a leer ci sama bët njukkeel gu la waa Thiès amal. ne président Idrissa nee na bi mu nekkee maire ci la nag la gën a xam ci la ko gën a leer itam njukkal gi nga xamante ne waa Thiès am nañ ko ci yow. dama gis ay dossiers yoo xam ne waa Thiès gisuñu ko. nee dafa gis ay dossiers yoo xamante ne. nee na moom gis na ko waaye waa Thiès gisuñu ko. liir na ay lettres yoo xamante ni adjoint au maire yi liiruñu ko. nee na liir na ay lettres yoo xamante ne adjoint au maire yi liiruñu ko. liir naa lettre directeur de cabinet du président Ablaye Wade. nee na liir na lettre directeur de cabinet Ablaye Wade nee na liir na lettre am. ci Thiès ci Thiès. kan moo bind lettre boobu. nee na lettre boobu kan moo ko bind. kan moo doon directeur de cabinet. nee kan moo doon directeur de boobu yow la nee na président Idrissa boobu yow la. ma gis ay lettres yu jóge ci yow dem ci président Wade gis lettres yu président Wade bind ministre des finances Ablaye Diop. nee na mu gis ay lettres yoo xamante ne dafa jóge ci yow jëm ci Ablaye Wade mu gis lettres yu jóge ci Ablaye Wade jëm ci yow mu gis itam ay lettres yu jóge ci monsieur le ministre Ablaye Diop ak yu jóge ci Ablaye Wade jëm ci moom. te lépp Cees la. nee na te lettres yooyu yëpp nag Cees la. ndax ñor bu la Cees ñor. nee na te maanaam loolu lépp li ko waral mooy ñor. gi la Thiès ñor président Idriss. kon ndono dëgg nga am ci Thiès ndonol politique loo xam ne kenn mënu koo dindi. ne président Idriss président Idriss monsieur le maire Babacar nee na ndono ndono dëgg dëgg dëgg nga am ci Thiès te ndono googu amul lenn amul kenn ku ko mën a dindi. man nag ginaaru ki naan ne ma. ne monsieur le maire Babacar nee na moom amul kenn koo xamante ne sa ganaara ko nen ganaaru kenn nenu ko. man je suis un homme nee na moom nit ku libre la. lu ma xam ci lu baax dama koy wax. nee na moom monsieur le maire lépp lu ma xam ci lu baax président Idrissa dana ko wax. histoire dëkk bii di Thiès. nee na histoire dëkk bii di Thiès. ba keroog jant bi di fay. nee na comme ni nga ko daan waxee président Idrissa ba jant bi di fay. kenn mënatul a bind histoire Thiès bii ci boolewul. nee na amul kenn amul kenn. ah monsieur le maire Babacar nee na amul kenn ku mën a bind ku mën a bind histoire u Thiès te président Idrissa Seck du la ci boole amul. buñ la jéemoon a rey nee na buñ la jéemoon a rey. ba enterré la. nee na ba enterré la suul la. fii. nee na Thiès fii. xaw ma leneen de. nee na xamul leneen de. bis dina ñëw dinañ la. nee na bis dina ñëw. dinañ la réhabilité. nee na bis dina ñëw danañ la réhabilité. ndax loo daj ci dëkk bi ndax ndax li daj ci dëkk bi. li nga indi ci dëkk li nga andi ci dëkk bi. li nga taxawu li nga taxawu dëkk bi. lu ma xam laay wax. nee na monsieur le maire monsieur le maire Babacar nee na président Idrissa lii muy wax dul muy làmbatu lii muy wax du mu xamul lay wax waaye lu ko leer naññ te mu xam ko moom lay wax. waxuma pour lu la def plaisir de. nee na ma président Idriss sa rakk. nee na waxul lu lay bégloo waxul lu lay kontaanloo de. bañ gëjee déggante yàgg na de. nee na bi mu gëjee dégganteeg yow yàgg na de. waaye bi ma nekkee maire. waaye nag bi mu nekkee maire. ndax course bii ñu nekk nag. nee na course bii ñu nekk nag. bu course waree am. nee na bu course waree am. course bi lenn dong la war a doon. nee na course bi lenn dong la war a doon. amal njariñ dëkk bi. nee na amal njariñ dëkk bi. te nag bu ñu jëloon course amal njariñ Thiès. nee na bu ñu jëloon course amal njariñ Thiès. sonnal Thiès. nee na sonnal Thiès. dem yalwaani wala dem wuti rooti wuti indi indi ci dëkk bi. nee na wala dem yalwaani wala dem rooti baa nga dem taxani baa nga dem wuti. ah ku la ci dëkk de. Ah, nee monsieur le maire nee na président Idrissa loolu bu dara desul lu dul wute li Thiès ak yalwaana li Thiès ak xool nan la Thiès war a maanaam doxee jëm kanam nee na loolu ku la ci dëkk ku la ci dëkk. am naa yaakaar ni moom danga ko yenu ba ci kaw teg ko ci suuf toog ci biiram. ci loolu. nee ci loolu. yokku na lu tax ma naw la. nee na euh, maanaam sa rakk Moussa le nee na loolu yokku na li tax mu naw la. ndax ñun dëkk bii dañ koo bëgg. nee na dëkk bii nee na ñoom dañ koo bëgg. lépp luy participer à son rayonnement daf ñu ñor. nee na lépp loo xamante ne dafay participer ci rayonnement ne daf dañ koy bëgg. bi may dem campagne di wuti dëkk bi. nee na bi muy dem campagne di bëgg dëkk bi. dama doon wax naan man damay roy Idrissa ci bëgg Thiès. nee na moom monsieur le maire Babacar bi muy campagne da doon wax ni dafay roy président Idrissa ci bëgg Thiès. pour mën a nekk ci wetu Thiès waaye bañ sentir ni ni Idrissa nekkee woon ci seen wet ci boppam ñu sentir ko. nee na maanaam mu dem élection. maanaam ndax yàlla fal ko ba mu taxaw taxawaay bi nga xamante ne président Idrissa moom la taxaw woon Thiès taxawu ko doomu Thiès yi maanaam ba ñoom ci seen boppu bopp duñu sentir mukk maanaam taxawaayu Idrissa Seck pour xam li nga représenté ak hommage bi ñu la war a rendre nee na président Idrissa nee na xam gi mu xam li nga représenté xam ngi mu xam itam omage gi nga xamante ne moom lañ la war a rendre dem naa ba un jour wax naa ñenn ñi bu secret peut-être la presse dina ko jël mais du lu am mais am naa envie def ko mais où ça se fera un jour. nee na lii muy bëgg a wax nee na du secret ndax xam na ni presse bi danañ ko jël waaye am na yéene nag bis lii mu yéene nee na am na bis mu def ko. bi ma liiree yenn dossiers yi. nee na bi mu liiree yenn dossiers yi. ak taxawaayu Idrissa. nee na ak taxawaayu président Idrissa. dama ni Idrissa Seck lépp lu ñuy tuddee ci dëkk bi il doit être au centre. nee bi mu liiree yooyu leetar nga xamante ne ñaar a xam ñett xamuñu nee na bi mu ko liiree ba àggal nee na dafa ni nag lépp lu nuy tudde fii waa Thiès Idrissa nag moom moo war a nekk nag ci digg bi dem naa ba yéen ci sama yéene mooy avenue Caen ma tudde ko Idrissa Seck nee na dem na ba am yéene dem na nee na moom maire Babacar nee na dem na ba am yéene avenue Caen mu tuddee ko président Alhaji Idrissa Seck mii toog mu tudd avenue Idrissa Seck. nee na mu tudd avenue Idrissa Seck. Idrissa Seck ñu ëppal njariñ Kanf. nee na Kan Kan Kan nee na Kan moomu. Alaaji Idrissa président nii moo ñu ko ëppal njëriñ nag. te li nga defal dëkk bi. te nag président Idrissa li nga defal dëkk bi. war nañ laa tudde loo xamante ni. nee na war nañu laa tuddee loo xamante ni. fii ba jant bi di. di di di fay. nee na fii ba jant bi di fay. ku ñëw cees nee na ku ñëw Thiès. bu ñu nee avenue Senghor. bu ñu nee avenue Senghor. bu ñu nee avenue Jean Collin. bu ñu nee avenue Jean Collin. bu ñu nee avenue Ousmane Ngom. bu ñu nee avenue Ousmane Ngom. bu ñu waxee ay Nina Fall. bu ñu nee ay Nina Fall. bu ñu waxee El Hadj bu ñu nee El Hadj Omar. wax yeneen. wax yeneen. war nañ ni lii mooy avenue Idrissa waaye war nañoo wax ni. waaw waaw ma waaw monsieur le maire nee na avenue yëpp buñ ko tuddee am na bu des mooy bu président Idrissa moo des. te boobu dafa war a nekk central. nee na nag te boobu ñuy tuddee président Idrissa nag waru a nekk nag ca gannaaw warut a nekk ca pegg waaye boobu ci digg bi la war a nekk. li may wax. nee na li muy wax. du waxu politique politicienne. nee ma monsieur le maire Babacar nee na lii muy wax nag du waxu politique. politique politicien ne déedéet du waxu politicien. bokkuma ak moom camp. nee na moom président Idrissa bokkuñu camp. ñu ne waxtaan ñoom ñaar wu déggante wuñu. déggante wuñu. xamul lan mooy sama projet xamul lan mooy projet am. xamul lan mooy sama yéene. xamul lan mooy yéeneem. fan laa jëm. xamul fan la jëm. dama gis. ne dafa gis. taxawaayam. taxawaayam. ci dëkk bi ci dëkk bi. ma xam ni kii. mu xam ni kii. bu ko Thiès rendrul hommage bu ko Thiès rendrul hommage. ku ceeg dikk hommage. da nee na keneen ku Thiès dikk hommage ne daf lay nax. bu ko Thiès yëkkatiwul. nee na bu ko Thiès yëkkatiwul. ku Thiès dikk. nee na ku Thiès dikk. la. yëkkati la. ay naxe la nee na loolu ay naxe ci li mu liggéeyal nee na président Idrissa nag ci li mu liggéeyal dëkk bi. loolu yokk na ma naw la nee na président Idrissa sa rakk nee na li tax mu naw la nawoon na la waaye loolu yokk na ci li tax mu naw la ndax bu ñu nekkee ay ndaw nee na ñoom bu ñu nekkee ay ndaw jaar ci yoon wi ngeen jaaroon nee na jaar ci yoon wi nga xamante ne ci yoon woowu ngeen jaaroon da ngeen ñuy mat référence nee na bu boobaa da ngeen leen di mat sëkk référence ndax ñu góor góorgóorlu ndax ñoom itam ñu mën a góor góorlu ba bàyyi tras na ñoom itam bu ñu ñëwee ñu mën a bàyyi trace comme yéen comme yéen comme yow sax comme yow sax comme yow ndax nag maire yi moom bari na. ndax nee na maire yi bari na. depuis waaye. depuis waaye. maire yi laissé trace. waaye maire yi laissé trace. dañ leen di wàññi nee na maire yooyu président Idrissa dañ leen di wàññi. ñu ci bari dañoo nekk ca tableau ba rek. nee na ñu ca bari dañoo nekk ca tableau ba rek. 1900 tel de 1900 tel rek. nee na ñooñu daal mën nañu wax ni dañoo nekk 1900 ba 1900 tel rek. waaye nag boo ñu woon nga woo askan wi wala nga woo historien yi génneel ñi fiy def ay trace. nee na boo ñu la waxoon woowal askan wi. wala nga woo historien yi ñu ñëw génne maire yi nga xamante ne ñoo fi def trans. yaakaar naa ñaar ngay génne. nee na boo yaakaar na ni moom ñaar daal di nga leen génne. Ousmane Ngom ak Ousmane Ngom ak président Idrissa Seck mii. nee na moom daal yaakaar na ni ñaar ñii moom di nga leen génne moom. loolu lépp daal di waxee cofeel bu ñu am ci yow. ne président boo gisee kàddu gi yëpp li ko waral dafay wax rek. di feeñal cofeel gi mu am ci yow. ak respect bu mag. nee na ak respect bu mag. ak xorma. nee na ak xorma. yow it ngay nit ku baax. ne président Idrissa yow it ngay nit ko baax. mën naa ci teem témoigner ñaar. nee na mën na cee seede ñaar. yoo xam ne dund naa ko. nee na ñaar yoo xamante ne dund na ko. guddi googu ngay wax ñu def élection yi. nee na guddi googu président Idrissa ngay wax ni nañu def élection yi. ba ñu defee élection yi ci guddi ga. nee na bi ñu defee élection yi ci guddi ga. am ñu génne ay résultats. ne am ñoo xamante ne dañoo génne ay résultats. jaxasoo ci yenn rajo yi. nee na mu jaxasoo ci yenn rajo yi. ma jóge Thiès. nee na moom mu jóge Thiès. ci guddi gi. nee na ci guddi gi. bi may dugg point E. nee na bi muy dugg point E. bu 4 heures du matin jotul yi nee bu 4 heures du matin jotul it. sori na nee na sori na. nga recevoir yenn leader opposition yi. nee na maanaam am na leader maanaam yu bëri yu fa nekkoon. nee nga recevoir leen ñoom ñëpp. bi may joor di introduire ci sa bureau. soxna Dior Silla bi mu koy introduire ci sa bureau. boobu 4 heures du matin. boobu 4 heures du jot na. situation bi était très nee na situation bi xawoon naa métti xawoon naa xat. parce que ñi ëppoon ci ndaw ñi. nee na ñi ëppoon ci ndaw ñi. y compris man mi nee na comprendre moom mii. man mii bokkoon ci. ne moom mii mu bokkoon ci. ni kenn warut a bàyyi mu sedd. nee na moom da bokkoon waxoon ni. kenn warut a bàyyi mu sedd. waaye bi mu ñëwee. waaye nag bi nga ñëwee. da ma lépp dëgg la. nee na bi dëgg la. waaye sama responsabilité. nee nga ko sama responsabilité. mayuma mayuma. benn bakkan di benn bakkan man président Idrissa mu ciy rot. ci guddi googu ci guddi googu. te yi ñu ngi commencé di. te boobu résultat yi mu ngi commencé di di tombe loolu mën naa ko nee na moom moom. monsieur le maire Babacar. seede bi mu seede ci président Idrissa nee na mën na koo seede. keroog bi nga ma woowee ñuy waxtaan. nee na keroog bi nga ko woowee ngeen di waxtaan. nga wax ma sa nouvelle orientation. nee na nga wax ko sa nouvelle orientation. ak li nga bëgg. nee na ak li nga bëgg. waaye dëppoo ci xalaat. nee na bi ngeen waxtaanee dëppoo leen ci xalaat. mais sag mat. waaye nag sa sa mat. ak sag yaatu. nee na ak sag yaatu. ak sag soor lu baree bare. nee na ak. sa sóor lu bëree bëree bëri. ak responsabilité bi nga am xam ni yaa ñu jiitu ci mbir mi. nee na ak responsabilité bi nga am nga xam ni yaa leen jiitu ci mbir mi. waaye wax ñun ci koo xamante ni yéene la. nee na nga wax ak nit ki te ki ngay wax ak moom la ngay wax ak moom ci yéene ngay waxee ak moom. nga wax ba ci yàgg nga ne lii ma lay wax nag dénkaane la. nee na nga wax ba yàgg tuuti ne ko lii ma lay wax nag dénkaane la. ak loo mënti def. nee na ak loo mënti def. na nga góorgóorlu nee na nga góorgóorlu ci woddu say kaddu nee na ci woddu say kaddu da xale nee na da ngay xale am lu réew mi di séntu nee na am lu réew mi di séntu ci yow woddal say kaddu nee kon nag maa ngi lay dénk na nga woddu say kaddu lii xew bu ci bokk nee na lii xew yow bu ci bokk mën ngaa wax lu ne nee na mën ngaa wax lu ne am taxawaay bu ne ci am taxawaay bu ne ci réew mi waaye say kaddu de waaye say kaddu nag dee ko woddu loolu jaar nañ nee na loolu jaar na ko président Idrissa Seck mii loolu mën naa ko nee na te loolu nag moom monsieur le mën na koo seede ki nga jaal si nag nee na ki nga jaal si nag su ma leen ne am naa référence nee na moom bu fekkee ni mu ngi ñuy wax ni am na référence benn la nee na benn la moom la nee na muy président Idrissa mii mooy référence am ah? Ah, ah, waaw waaw waaw maa ngi ñëw waaw ne nee na bu fekkee ni am na idole wala mu am référence wala mu am kenn koo xamante ne royo waayam la nee na mooy way jur wii nga xamante ne muy baayam di Serigne Cheikh Mbacke Diop mii nga jaale si président Idriss. lépp ci valeur la ko def ak ñoom. nee na way jur woowu nee na lépp ci valeur la ko def ak ñoom. ak dignité nee na ak dignité. da nga daan ñëw seet si ko. ne da nga daan ñëw seet si góor gi. mun la baa xam nga ni mbub mu weex nga sol. nee na góor gi Serigne Cheikh Mbacke ne la. baar xam nga ni yow mbub mu weex nga sol. nga ne ko papa lan mooy mbubb mu weex. nga ne ko papa lan mooy mbub mu weex. mu ne ki sol mbubb mu ñuul. ne mu ne góor gi ne ko ki sol mu ñuul. fu ko neex toog ne kooku moom. seexluwul dara fu ko neex mën na fa toog. fu ko neex dem ne fu ko neex mën na fa dem. bu paree day faxas nee na bu pare day faxas mbubbam rek daa di dem. waaye yow mi sol mbubb mu weex. waaye yow mi sol nag mbubb mu weex. boo toogee foo warta toog boo toogee foo warta toog. boo jógee ne boo jógee. ñun la sa waa ji foo demoon ne danañ la wax ni waaye sa waa ji fan nga demoon. mu ni borom mbubb mu yi ngeen bokk. nee na yéen nag ci borom mbubb yu weex yi ngeen bokk. boo solee mbubb mu weex. boo solee mbubb mu weex. du fu la neex dem. nee na du fu la neex dem. du lu la neex wax. du lu la neex wax. du lu la neex lekk. du la neex itam lekk. loolu yar. nee na loolu def ñu def leen cee yar. di ñu ko nee di leen ko répété. ba daanaka booy def dara da ngay ragal. nee daanaka sax góor gi fa mu jaar ak ñoom ak la mu leen doon dénk boo bëggee def dara sax da ngay ragal. ndax loolu wax jooju. ndax nee na wax jooju. daan nañu wax ne. nee na daan leen wax ni. lépp loo dugg. nee na daan na leen wax ni lépp loo dugg. lu dig ba rëy rëy rëy. nee na loolu ngay dugg. lu dig ba rëy rëy rëy. loo cay séentu lu mu rëy ak loo cay séentu lu mu rëy boo ci naree perte sa dignité. nee na boo ci naree perte sa dignité. wan ko ginnaaw nee na loolee na ko wan gannaaw. daal di dem na daal di dem. xam ni yàlla dong la moom xam ni yàlla dong moo la moom. mu ne bu la daray nee na góor gi daan leen wax ni bu la daray daray adduna jaral. ngeen wanteer seen nee na ngeen di wanteer seen dignité du poste politique nee na du poste politique bu mu war a nekk bu mu war a nekk alal nee na du du bu mu nekk alal bu mu war a nekk dara bu mu war a nekk dara dignité boobu dañu ko daan wax ba nee na dignité googu góor gi da leen ko doon wax ni daf ñu ko daan du di di ñu ko sax nee na góor gi da leen ko doon sax di ko sax di leen ko sax ba nga mujj ba mujj sax yow da ngay tiit da ngay tiit ci sa bopp yow te chaque jour yaa ngi mesurer. ndax nee na chaque jour yaa ngi mesurer. li la góor gi wax ak say la góor gi wax ak say jëf. ca loolu ma mën ci misaal dara. nee na loolu mu mën cee misaal dara. keroog bi ma duggee rëbës. nee na keroog moom mii biñ ko yóbboo rëbës. mu ñi libéré ma. nee na ñu yóbbu ko rëbës libéré ko. bi université yi yëngoo ni nañ ma libéré. nee na université yi bi ñu yëngoo ni nañ ko libéré. ma ñibbi kër ga. nee na ñu bàyyi ko mu ñibbi kër ga. bi ma demee fekk waa SAES e di ma xaar. nee na mu fekk waa SAES e di ko xaar. ma dalal leen kër ga ba pare. nee na mu dalal leen ca kër ga ba pare. libéré leen ñu dem. libéré leen ñu dem. ma jël sama téléphone. nee na mu jël téléphone am. sama yaay. nee na mu woo yaayam. ndax góor gi amul téléphone. ndax góor gi moom amul woon téléphone. mu paas ma nee na yaayam paas ko góor gi. keroog maa ngi wax ni. nee na keroog moom mu ngi wax ni. laajuma ndax rëbës metti na. nee na góor gi biñ ko bi ko yaayam paasee góor gi góor gi laaju ko ndax rëbës metti na. laaju ko parce que ba ma génn dañ maa gaañ laajuma ndax gaañ bi garaaw na wala garaaw. nee bi muy génn rëbës dañ koo gaañ waaye góor gi laaju ko ndax gaañ bi metti na wala mettiwul. keroog daanaka xawumaa nuyu sax. nee na góor gi sax daanaka xawu ko nuyu sax keroog. lii daal la ma wax. nee na góor gi lii la ko wax. lépp loo war a bañ. nee góor gi def ni ko. lépp loo war a bañ. bu adduna yëpp woon fële contre la. nee na bu adduna bi yëpp woon fële contre la. na ko bañ ba ñëpp xam ni bañ nga ko. nee na na ko bañ ba ñëpp xam ni bañ nga ko. lu la ca mën fekk bañ nee na lépp lu la ca mën a fekk itam na nga ko bañ. waaye lépp loo war a nangu na nga nee góor gi ne ko nag lépp loo war a nangu itam na ko nangu. bul bañ pour bañ rek. bul bañ rek pour bañ. loolu jaar nañ fa. nee na loolu jaar na fa góor gi Baye Mbacke Baye Cheikh Mbacke. daan nañu wax ni. nee na daan leen wax ni. ndax bëgg ngeen a gën seeni i maas. nee na Baye Cheikh di woy juróom wii ñu jaale si nee na daan na leen wax ni ndax bëgg ngeen a raw seen maas. ne loolu mooy lan. nee na góor gi ne maanaam mu ne ko papa loolu mooy lan. mu ne ko da ngay fekk li nga xam ne moo war ñëpp. nee na góor gi ne ko. loolu mooy da ngay fekk loo xamante ne moo war ñëpp. nga gàddu ko nee na yow kott nga gàddu ko. boo ko defee. nee na boo ko defee. gën say maas nee na di nga gën say maas. li la hommage bi la waa cees di defal foo génn. ne président Idrissa hommage bi la waa cees di defal foo génn. cër boobu ñu la jox. nee na cër boobu ñu la jox. da fekk lu war ñëpp. da ngaa fekk yow président lu war ñëpp. nga gàddu ko nee na yow kottu nga gàddu ko. loolu moola may cër bi. nee na cër bii nga am ci Thiès nee na li la ko may mooy loolu. fi may jeexal. nee na fi muy jeexalee. ci benn leçon de leadership. nee na dafa am benn li lesson leçon ci leadership. bu ma góor gi jàngal nee na góor gee ko ko jàngaloon. leader bu fi ñëw rek. nee na moom monsieur le maire bépp leader bu fi ñëw rek. partagé naa ko na partagé na ko ak yow. même waa armée bi biñ fi ñëwee. nee na waa armée bi sax biñ fi ñëwee. partagé naa ko ak nee na partagé na ko ak ñoom. yow nag da ngaa bokk ci leader africain yi gën a mag. nee yow nag président Idrissa ci leaderu africain yi gën a mag ci nga bokk. ndax leadership moom. nee na leadership moom. ku koy jàng wala nga koy jàngale. nee na ku koy jàng wala nga koy jàngale. bu la jegee tuuti. nee na bu la jegee tuuti. dina xam ni moom maître nga nee na dina xam ni yow président Idrissa maître nga ci sëriñ nga ci. woon moo tax. nee na moo tax. mais partager expérience. nee na moo tax expérience bii mu am mu bëgg ko partager ak nun ndax dafa fekk jamono ma nekkoon leader dans le mouvement étudiant. nee na dafa amoon jamono mu nekkoon leader ci mouvement étudiant. di jiite ay grève rek. nee na moom Babacar muy jiite ay grève rek. ba jamono sax dàqoon nañu nee na ba amoon jamono sax président Idrissa dàqoon nañu ko moom université université yàlla rek xanaa moo xamoon ni jeexalu ma nee na yàlla rek moo xamoon ni moom jeexalu ca jee jeexalu fa moo tax léegi bu ma demee bay jàngale université damay xam ne yàlla rek man nee na moo tax bu ko yàlla sàmmee aar ko ba tey mu nekk université ba tey di fa jàngale moom day xam ni ndeke yoo yàlla rek a fi ne mm-hmm. léegi bi ñu nekkee ci ay jafe-jafe yooyu. nee na moom bi ñu nekkee ñoom ci ay jafe-jafe yooyu. ma am sama benn mag. nee na moom mii mu am benn magam. boo xam ne moom papam lañ ma tuddee. nee na magam boobu papaam la ñu ko tuddee. mu ngi nekkoon Genève. nee na Genève la nekkoon. mu ngi tudd El Hadj Matar. nee na mu ngi tudd El Hadj Matar. Diop léegi mi xam ngi Canada. nee na léegi sax nag Canada la nekk. mu ni ma. boo toogee dakaar sa jàng mën na yàqu. nee na magam boobu El Hadj Matar ne ko. boo toogee Dakar yow Babacar sa njàng mën naa yàqu. ndax boo ne ba nga nekkee lycée ba léegi yaa ngi grève. nee na bi nga nekkee lycée ba léegi yaa ngi grève. nga ñëwati Dakar. nee na nga ñëwati Dakar. ngeen nekkati ci grève yi. nee na ngeen nekkati ci grève yi rek. dàqoon nañu la ba lay. te nañu la ba ñu lay soog a jëlaat. tey ngaa ñëw Genève. mu ne ko tey ngaa ñëw Genève. nga continuer na ñëw nga ñëw fii sa njàng. état joxu la bourse. nee na état joxu la kenn du la tuumaal ci mbirum bourse. nee na état joxu la bourse te amul kenn ku lay tuumaal ci mbiru bourse. man ni ko El gis nga étudiant ni muy xalaatee. ne monsieur le Babacar ne ko El Hadj gis nga étudiant ni muy xalaatee. tey jii boo fi jëlee avion dem jàngi. nee na tey jii boo boo fi jëlee avion dem jàngi. fekkoon dañ laa yalwaanal dërëm dërëm dërëm. nee na bu fekkoon dañu laa yalwaanal dërëm dërëm dërëm. nga dem nga dem. dañ naan dara gars jënd nañ nee na dañuy wax ni rek eh kii moom gars yi dañ koo jënd rek. dara jënd nañ ko. nee na dara jënd nañ ko rek. dem na bàyyi ñu fi. dem na bàyyi ñu fi. te moo fi nekkoon grève na yàq suñu jàng. moom moo fi nekkoon di grève te yàq na suñu njàng. El Hadj moomu daal di insister. ne El Hadj magam boobu daal di insister. jamono boobu. nee na jamono jooju. sama wayjur ñëw dakaar benn ngénte Pikine sama nee na wayjuram Baye Cheikh Mbacke mii génn aduna nee na mu ñëw dakaar benn tudd bu fa amoon sama benn sœur nee na sœuram moo doon tuddu ma exposé ko problème nee na moom monsieur le maire Babacar mu ñëw ba ci góor gi daal di koy tegal nag problème bi wax ko ko bi may répondre nee na góor gi bi mu koy tontu boobu retraité na lu mu néew néew bu am 10 ans nee na góor gi bi mu koy tontu boobu retraité na lu mu néew néew am na fukki at xam nga ban wéyjur ngay ñëw naan ko sama doom mi université dafa war a dem Genève di jàng day di lan moo ci sa xalaat. nee na ban wayjur ngay ñëw ci moom wayjur war a retraité te kenn ku de xam na ni ko retraité moom daanaka doole doo da nga koy néew dootoo ko bari le doomam ñëw ci moom di ko ni damaa bëgg a def damaa bëgg a dem Genève pour jàngi ji loolu moom tontu bi moom am naa yaakaar ñu bari xam nañu ko mm-hmm. ko retraité am doom. mu toll foo xamante ne war naa mën a ñëw aw la ne la damaa bëgg a dem Genève pour jàngi ji wayjur woowu lan mooy tontom Imaam Idriss. waaye ci dignitéem waaye góor gi nag moom ci dignitéem ak nekk visionnaire. nee na ak nekk visionnaire. lii la ma tontu. nee na góor gi lii la ko tontu. président Idrissa waxuma demal waxuma bul dem. nee président Idrissa. góor gi waxu ko Babacar demal waxu ko Babacar bul dem. lii daal la ma wax. nee na góor gi daal lii la ko wax. ma ni nit ku ne. ne góor gi def ko ni nit ku ne. bu fekkee day liggéey ak ay moroomi nitam. nee na bu fekkee ni dafa nekk ak ay moroomu nitam di liggéey ak ñoom. jaxasoo ak ñoom. nee jaxasoo ak ñoom. war naa góorlu nee na góor gi ne ko war naa góorlu ba moom bu nekkee ci biir néeg war naa góorgóorlu ba moom moomu bu nekkee ci biir néeg bi. mbooloo nekk ci ëtt bi. nee na mbooloo nekk ci ëtt bi. ëtt bi ñu nekk garab nekk fa. nee na ëtt bi ñu nekk garab nekk fa. garab gi xob yi verte. nee na garab yi xob yi vert fii kenn cataracte. nee na te nag amul kenn ku fi toog koo xamante ne da ngaa cataracte. ñëpp yor seeni bët. nee na ñëpp a yor seen bët. ñuy xool garab gi. nee na ñuy xool garab gi. garab gi xob yi vert nee na garab gi xob yi verte. mu ne war ngaa góorgóorlu ba boo génnee ci néeg bi. nee na war ngaa góorgóorlu yow mi nekk ci biir néeg bi di kilifa gi boo génnee ci ëtt bi. nga ñëw nga ñëw jàkkaarloo mbooloo jàkkaarloo ak mbooloo mi nga ne leen tey de garab gi xob yi vertu nga mbooloo mi tey daal garab gii daal tey xob yi vertuñu xob yi dañoo zone xob yi dañoo zone war ngaa góorgóorlu ba mbooloo mi duñu am fitu démentir la nee na war ngaa góorgóorlu ba amul kenn ku nekk ci mbooloo mi kuy am fit taxaw weddi la di la wax ni déedéet xob yi dafa vert ndax dinañu kii lépp lu ñu mës wax dëgg ndax mbooloo mi yépp danañu maase ci wax ni kii lépp lu ñu mës a wax dëgg la ndax musuñoo wax lu deñ ndax musuñoo wax lu deñ nee na kon nag comme nee na dafa zone ndeke yoo kon nun la sunuy bët moo baaxul waaye xob yi dafa zone maanaam ci misaal dëgg nee na misaal ci maana nee na misaal bi mu ciy joxe rek nee na dëgg mooy président Idrissa bu nekkoon ci biir. nee na mu gën koo tojaat gën koo leeralaat ndax dégg-dégg yi yemuñu nee na président Idrissa mii bu nekkoon ci biir néeg bi. waa réew mi yëpp toog di ko xaar. nee na waa réew mi ñoom ñëpp maanaam ñëw toog fii ci garab gi di ko xaar. ñëpp ñu toog jàkkaarloog garab gi garab nee na waa réew mi ñoom ñëpp commencé ko ci président maanaam imaam Idrissa Gaye mii ñoom ñëpp ñu toog amu ci kenn ku sa bët lëndëm kenn katraagul kenn mi yóbbul ñoom ñëpp seen bët leer na nañ mu war naa góorgóorlu bu président Idrissa génne ni leen tey de garab gi vertul dafa zone. nee na kon nag moom moomu de président Idrissa war naa góorgóorlu ba bu génnee ci néeg bi ñëw ne tey jiide de yéen da ngeen ne dafa verte waaye xob yi tey vertul dafa zone kon nee na moom war naa góorgóorlu ba. bu leen nee xob yi dafa zone. bu leen nee xob yi dafa zone. kenn du am fit démenti. nee na waa réew mi ñoom ñëpp du kenn ci ñoom du am fit taxaw ne ko président Idrissa lii nga wax de du noonu. ndaxte dinañ ni kii lépp ñu mus wax dëgg la. ndax ñoom ñëpp ci ni ñu xamee président Idrissa ci dëggu ak musu leen wax lenn lu dul dëgg moo tax ñoom ñëpp danañu maase ne président Idrissa lii mu wax de dëgg la ñun kay xëy na ñun la sunuy bët ñun la sunuy gët baaxul. waaye lay maye loola. nee na loola nag lu koy maye. doo ko liggéey ci benn nee na président Idrissa du ci benn fan rek la ko nit di liggéey am ko. ba ma góor gi waxee loola. nee na ba ko góor gi waxee loola. ci la jàngat. nee na ci la jàngat. xotti prescription bi nee prescription bi ci la ko xotti. toog Sénégal nee na ci la nag toog Sénégal nag. boobu leçon de leadership. nee na leçon boobu leçon de leadership. jàng naa ko ci nee na ci góor gi la ko jàngee. kon jotaay bi mi ngi bëgg a. nee président Idrissa sa rak waaye sa xarit sa soppe. monsieur le maire Babacar nee jotaay bi mu ngi bëgg a yàgg ne président Idrissa nee na moom mënul lu dul ñaanal la nee na ak sa njaboot yëpp nee na ak sakku itam ci yow ak njaboot gi ngeen ñaanal ñaanalal ko góor gi nee na moom lépp lu ko nit jàppale ci ñaanalal ko góor gi nee na doyul ndax nee na góor gi fi mu ko féete woon ne place place bi mu am ci dundam nee na ak ci xolam kon ñaanal la ne kon nag président Idrissa sa rakk nee na mu ngi lay ñaanal fan bu mu ngi lay ñaanal fan bu gudd ne mu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokk sa wér yal na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay yal na la yàlla defal jàmm ne te insha allahu monsieur le maire nee na président Idrissa di nga ko am ndax nee na président Idrissa ci jàmm rek ngay dox néew na nga gis nit kuy dox ci jàmm di am safaan nee na président Idrissa néew na nga gis nit kuy dox ci jàmm ba am safaan nit kuy dox ci jàmm ci jàmm rek lay am. Mm-hmm. donc kon loolu daal ñu ne président Idrissa sa rak sa xarit waaye sa kilifa muy sa maire ne mu ngi lay nuyu. ne mu ngi lay ziyaara. di la wax am nañ mbégte. ne di la wax ne président Idrissa am na mbégte bu baax a baax a baax a baax. dalal naa gan gu ne. nee na gan gu ne dalal na ko. ñëw na fi jaale nee gan gu ne ñëw na jaale si ko. ci ci armée nee na ci état ci armée maanaam ci kilifa diine ci ku ne ñëw na fi jaale si ko. waaye wax dëgg yàlla gan gu waaye tey nag dëgg dëgg dëgg ganu spécial am muy président Alhaji Idrissa Seck. ndax da ngaa am xol ci suñu. ndax ndax nee na da am place bu ci xolam. ci xolam nee da ngaa am place ci xolam. moo tax nee na moo tax. nee na moo tax gan gi nekk gan goo xamante ne ganu spécial la ne mu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barak doonoon aalim doonoon aabid ñu bokk dëkk ca Mbuur un ba masaana firi alquran nga xam ne firi katu alquran firi na kon tey bu sa frère ñëwee di la jaale si waat baay boobu di la masaw di la ñaanal yàlla yàlla jàppale leen njaboot gi mu fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxoom président ma seedal la monsieur le maire mii toog bi mi xewee ba tey ku fi ñëw si sa njabootu bay xalifa gaye leen tontu ñooy dox njaal mi ñoo yor lépp sama frère Oussa Abdoulaye Gaye tey dafa dem Makka yóbbu dem Umra waaye bu fi ñëwoon mooy toog fii tontu njaal yi amul kenn ku fi ñëw ba mu dooree ak tey ba fii ñu toll te du sa njabootu bay alaaji xalifa ñoo ko yor ndax ñoom seen waa kër yëpp ca kër ga la ñu jàngee ñu doon ay mbokk doon ay xarit doon lépp. kon fa tabarakallahu kon tey jii boo amee ñu dikkaat ànd ak yow mi nga xam ni yow la ñu yàlla booleel démb tey di soog ñëw ñu ànd ak yow ñëw jaale si monsieur le maire kon daañu dolliwaat am mbégte di la ñaanal rek sekk yàlla na yàlla mottali sa yéene euh, lu rafet rek nga bëgg lu rafet rek nga xam lu rafet rek ngay dox ndax tànk yi nga jóg ana président Idrissa ma nga kër fan monsieur le maire kër Diop ñi xam lu baax bëgg lu baax xam démb du ñu jaaxle. daan ne est-ce ki jaaxle kañ mooy ki xamul te bëggul lu baax waaye ku xam demb te bëgg lu baax toogaay bii xolam da ciy sedd guy donte li ñu dal baay bu faatu la ndax kii toog doomu daara la kii toog ci wetam doomu daara la xam nañ ni kullu naftin daiqatul mawt waaye li am solo mooy dem bàyyi lu baax ñu taxaw taxawaay bu baax tey tànk yooyu moo yëkkati sa frère bi kon li des ci li muy mottali ci kaddu njaal yi te war ko wax moom laa koy teg ci xolam nuyu mboolem ñu nu fi fekk jaal mboolem ñu nu fi fekk ci turu président Idrissa Seck di ñaan sunu borom nag ah lii yàlla fi gëj bi jaay Seydina Muhammad kon su ko defee ñu déglu président mu génne lenn li ci xolam seedeel la ko ci seen baay bi nga xam ne yéen ko bokk ñàkk incha allah bismillah